salaamaaleykum chers internautes Dakar People ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ravi de vous retrouver dans votre site leader Dakar People site bu leen di jox ay renseignements yu leer en tey nag ñu seet ci kenn koo xamante ne si boo nekkul ku ñuy présenté ci mim mu nekk taalibe Sëñ Saaliw dañ koy bàyyi rek mu nuyu ak suñuy mbokku internet délégué ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay jëriñ. di ziar ñëpp di baalo àq ñëpp. Mm-hmm. di ci ci nuyoo bi ziar bi Serigne Mountakha Mbacké. di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te mu wér lool ak mboolem këru tarixa diine yëpp képp ku fi kilifa diine di siyaar waa Sénégal di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq jaajëf kon ñoo ko déggandoo ñoo seet si ko tey ci këram fas yéene waxtaan moom ci ay ponk yu bëri dañ koy dooree nag ci événement boobu nga xam ne mooy màggalu Porokhane duñ ko seet si fii mu nekk taalibi Sëñ Saliou ba pare te duñ waxtaanee moom ci point ci point boobu euh, délégué tey suba nekk bésu Soxna Jaara en tant que murit nu mu la def waaw sant rek bis boobu moom mooy bis bu mag bi. Mm-hmm. bisu soxna maam jaarut laay bisu moom. Mm-hmm. mooy bisu soxna yi di bisu murit yëpp ndax mm-hmm. lépp moom la nag de. waaw donc ñun xam naa tey ju guddi daal incha allah. bëgg nañ fanaani poroxaan. waaw incha allah ci kàttanu yàlla. ñu koy waajal bu baax a baax. en tant que gis nañ fan yee ci jàll yuy événement yu fi amoon ban message ngay lancé chauffeur si tamit ci événement bi. waaw affaire yi moom daw nànk dal nànk rek. waaw xam nga borom bi moom la mit lay am bind na ko bu yàgg. Mm-hmm. jaam bi munu ci dara mais ñuy daw nànk dal nànk rek la sëñ Fall daan wax. Mm-hmm. moo ci am solo. Mm-hmm. dañu concentré wu ci direction yi quoi. di di xam ni ñuy ni ñuy ni ñuy dawalee daal. oto mënoo ko di dawal bu xasee ba weesu quatre-vingts rek. sal ñaari loxo nga war a teg ci direction bi. Mm-hmm. dina la mën a muccal ci lu bëri bu pneu tojee wala at lu mu mën di doon. Mm-hmm. waaye di daw lu bëree bëri bëgg a yor benn téléphone téye téléphone bëgg a yor tamit euh, benn loxo nga téye ko direction day xaw a compliqué. Mm-hmm. donc nañu nañu concentré wu ci direction bi parce que loolu mooy oto bi. waaw ñaaxaat safoor yi ñu def nànk rek. waaw ñu dem màggali ci jàmm ñibbisi ci jàmm ci kàttanu yàlla incha allah. macha allah am solo ñu dem màggali si jàmm ñëpp si si jàmm nee naa la nekk na kenn koo xamante ne événement suy a koy daw seet dañ koy déglu te sénégalais yi jox nañ koy nopp ñu jëm ci boo xamante ne boo mën naa la a tiit instant yi mooy procès boobu nga xam ne mooy procès Ousmane Sonko diggante moom ak Mbaye Niang ñu war leen a àtte suba le 2. ah projet bi moom xanaa wuy ji rek voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ginnaaw dañ ko woolu yoon da ko woolu kay ci lu jëm ci diffamation yaakaar na mm-hmm. kon def lu def lu dul wuy ji ko rek waaw su demee wuy ji lu mu fa jëlee ñu xam ne loolu gars yi la fa borom bi dogal. Mm-hmm. parce que diffamation moom mm, ah yàlla baax na daal yàlla bëri na sutura. Mm-hmm. na dem wuy ko ci jàmm. Mm-hmm. buñ ko bàyyee mu ñibbisiwaat ci jàmm. loolu kese la. ci problème boobu ñëpp jàpp ne diffamation amul ndaxte moom nee na diffamation amul ndaxte gis na preuve bi sax ci internet bi kon nekkul loo xamante ne moo ko njëkk a génne woon ko sénégalais. ah waaw yoon moom xam nga yoon moom kenn nu ñu ko jàngal. yoon it xam na bu demee ba génn preuve mu nekk loo xamante ne ni que ñoom ñaar ñëpp ay homme politique lañ. Mm-hmm. homme politique nag bu defee lu dul yoon. Mm-hmm. wax dëgg yàlla gars yi dañ cee war a génn wax ko. Mm-hmm. parce que mu mënuñu nekk ne dañoo siiw ba pare bañ ko wax ci ñoom. c'est impossible nit bu siiwee faaw ñuy wax ci yow. donc euh, fekkee nekk nag dafa nekk homme politique def lu dul yoon. nit gis ko wax ko. Mm-hmm. yooyu amee bu demee ba ci yoon yoon daal na àtte li nga xam ne moom la yoon tëral rek. Mm-hmm. bu dee nag moom ci boppam daa waxal nit ki ci loo xam ne amul preuve te loolu nekkul. Mm-hmm. diffamation lañ koy daal di tuddee. te diffamation yoon mën na la ci teg ay daan. lu nekk mën na ci am. donc nañu dégluwaay yoon rek ginnaaw ñoom ñoo ñu gën a xam ni ci dossier bi. bu subaa incha allah ñun dinañu fekk poroxaan waaye xëy na information yi dinañ ci jot. Mm-hmm. waaw lu lu ñu fa jëlee rek ñu xam ne loolu la borom bi dogal. Mm-hmm. waaye am naa yaqin ne maam Meññaa moom xam ne xëy na du tëj nit. ndax xam naa ko bu baax xam naa ak mbaaxam donc bu ko nit tooñee mën na la nit nag sañ nga bu ñu la tooñee nga yóbbu ko ci yoon waaye nag su fekkee nekk dem ngeen ci yoon ba toogat yoon ba def confrontation donc man nga kaa jéggal foofu man nañ ko bàyyi lu ne xañ na ci daal waaw te est-ce que Ousmane Sonko ak lu muy représenté ci réew mi ak xale yi nuñ ko joxee bopp est-ce yoon la tamit muy génne ay preuve li muy tuumal nit loo xamante ni tamit amul ci preuve waaw moom ma ngi preuve bi bu dee ba foofu mën na koo génne loolu mooy wax ji xam nga nit ki moom mooy diffamation rek nit ki waxal nit ki loo xamante ne nii ko leeru la uh-huh. boo demee ba ci yoon fekkee nag loola leer naññ la boo ko génnee teg ci taabu yoon da lay bàyyi nga ñibbi waaw en tant que influenceur nga nekk euh, xarit xaritu xale yi tamit ban message ngay lancer jeunesse ah man bay sama bopp daal xam naa ne duma xeex du ma xuloo uh-huh. benn homme politique jarul lu ma taal waaw man bokk man amul kenn koo xam ne jaral nga ma taal pono mhm. ndax du benn politicien bu may jox ma lekk du benn politicien bu may jox ma naan. Mhm. mbir mi li koy faj lenn la élection yi jot nga dem mhm. voté ku la neex mu toog jàpp ngeen jàpp sa ñàmbar waaye kantan di génn di sànni pono di xeex te ñaa koy defal di ko defal sa réew sa réew sax a tax nga def waaye ñi la ciy poussé ba nga ànd ak ñoom tey seen i doom su dañuy génn sax nekk ci kanam ñu ànd ak ñoom liggéey bi. ñu ànd ak liggéey bi. waaw ginnaaw nag du ma digal kenn muy dem di xeex. ñu lay jàpp say waajur di sonn di indi ay añ ngay feebar say waajur di sonn di fajat lu nekk ñoo koy def te ña ña taxoon ngay xeex at sa réew sax mm-hmm. ñooñu kenn du ci ñëw di la jëndal benn ordonnance bu gën a ndaw mm-hmm. donc nañu nañu nañu demee at suñu xel daal mm-hmm. waaw Macky Sall bi mu bëggee woon réew mi 2012 dafa dem ci bi mu jotee ndigal dégg sëñ bi ne nañ dem liggéey te bàyyi xeex benn xuloo bi moom dafa dem liggéey ñëw yàlla borom bi jox ko réew mi affaire bi loolu la rek waaw am na solo dama leen ne Sénégalais il faut ñu bàyyi nekk égoïste tamit ndaxte Ousmane Sonko dañ ko tuumal ñëpp di laaj preuve donc su tuumalee keneen tamit nañ ko bàyyi mu dem wuyu ji yoon génnee preuve yoo xamante ne yooyu la am ci xamante ne moom lay tuumal dañuy dugg nag ci beneen problème boo xamante xam nga ne délégué moom ku ko xam mu waale problème am fii moom ci Sénégal si yëpp mën naan la bokk na si ñuy njëkk a jóg kii di waale ñu benn problème boo xamante ne wàllu xëccoo diggante waale ak Pape Diouf mu génnoon fi def fi benn vidéo mu ne ñun jëbetoon vidéo boobu nag ñëpp ci commenter ñu ne Pape mais Tungane du teew ñuy nataal ñuy nataal dañ koy bàyyi rek mu expliquer lan moo waraloon vidéo boobu. vidéo ban la ci. bi nga ñëpp jàpp ne. Ah, kii di Pape Diouf nga du wax. non xaw ma xaw ma ki ngay tudd noonu man sama artiste laa xam man dama dama doon dem Vox sang solo ba pare génn ñu jël ma vidéo ma ne leen ñu ngi dem doggali. donc dem nañ samedi toj ko dimanche ñu dem doggali. Mm. ñun tëgg nañ kenn ñoo tere tëgg. te it mm. yaakaar naa sunu ñaari soirée yi ñu def yëpp fees dell. Mm. kon boog ñu ngi sant yàlla. ku yaa mbër mu yàlla samp daal mm. da koy bàyyi ne xam ne lii yàllaa ko samp jabetul nag ñun suñu artiste muy Wally jabetut suñu borom dogal na loolu ci moom mm. amewut jabat jabet amewut benn feebar boo xamante ne ni ko teree tëgg mm. ñun ay fansam ak i supporteram ak i euh, fansam ak i ay xaritam at ku mën di doon ay manager am tamit jabetunu te amuñu benn feebar bu leen teree dem soirée comprendre nga loolu suñu borom dogal na ko ba pare te ay fans waale super euh, ménager waale mhm. boo duggee seen kër da ngay kontaan parce que doo xuus c'est peinture yo xuusuwul xam nga li ma la wax loolu sant yàlla la loolu yàlla rek yàlla suñu borom ci waale la ko jagleel te waalee ko am mhm. kër njago euro macha allah boo fa duggee bu na laa toogal doo sax bugg a toog ndax maanaam taaru mhm. da ngay bëgg a dañ kumpa kër gi da ngay mel ni ku nekk biir kër yi nekk am këru américain yi kami américain yi loolu laa gëm ci ménageur ménageur da ngay sa bopp ménageur da bëgg sa bopp xam nga njëgu euro tey jii doo ko fekk ci mbedd mukk muy vidéo di saaga ndey kenn parce que njëgu euro dafa am benn maanaam dafa mature ci boppam comprendre du nit koo xam ne dafa immature li ma jàpp xam nga njëga doo ko be fekk muy xuloo njëga mënoo ko sax gis du sax njëga caméra loolu mooy ménageur ménageur da ngay am da ngay am benn genre standby bi nga xam ne da koy am ci diggante média bet at ci lu mu mën di doon doo concurrence doo nekk di xuloo doo nekk di xeex doo xëccoo dara lépp danga koy bàyyee at say fan at say support euh, say say ñi nga xam ne ñoo la bëgg ñu defal ko seen bopp. Mm-hmm. loolu kese la mais kanta nekk fi di def yi fi manquant di def lii di def lii loolu njaga du ko def ay fan su waali duñ ko def. Mm-hmm. waali ci boppam du ko def. Mm-hmm. ba coow li amee déggu leen waale génn benn yoon di wax kii ñor na wala ñorut. samedi dafa jot ñu dem almadi toj ko dimanche ñu jot ñu dem alma almadi doggali ko. parce que amuñu feebar boo xam ne dañuy tere way amuñu feebar boo xam ne dinañ ko wane pour mën a am benn am benn benn boîte ci dog boobu la ñëwee bu ngeen déggee Pape Diouf dem na euh, jëlee daa am contrat fii ji Baara Mouné te gis gis nañ bu ñu tëjee boîte bi yéen da ngeen dem Vogue lan moo tax bu ngeen déggee kooku daa jël boîte bi am ci contrat demu leen Vogue nguur bañ a coow tam non non man xaw ma ki ngay wax ñun ñun Baara Mondi xamoo Pape Diouf non Baara Mondi mhm. suñu Baara Mondi ñun ku ko xam-xam ne waali moo fay def gise fermé tey baara moo ni su ma ko jëlee jox ko Ouzin Keita ah Ouzin Keita tëgg fa feesut ah du ma ko joxaat amee ah, mais dañoo gis euh, sooy kanamu baaramu nit ñi di def Pape Pape Diouf tous les samedi tamit. non loolu loolu loolu yàgg na fa xam nga tey jii nga jël benn affiche. Mhm. taf ko ci benn buntu boîte. pendant des années da ngay sax tayel dindi loolu. man mhm. nga dem ba taayal koo dindi doo ko sax bàyyi xel. Mhm. sa teewul ma nga fa wonte waale dafa doon tëgg sax jour. chaque samedi. mais ñëpp jàpp te loolu yàgg na fa. Hmm. bu ko yàgg dem baar moo yàgg ngaa gis affiche ba foofu. Hmm. te teewul waa da dem soirée waale sax gis affiche ba foofu taxul mu tëgg fa. mais ñun daal li mooy ñun dañ faa waroon tëgg ñoom ñu ni fay tëgg hmm. yàlla dogal préfet li mu def ñoo ngi koy ñoo ngi li mu def mooy yoon boo déggee ñaañu da ngay def li nga xam ne moom la la yoon mooy tëj na baara ñun teewu ñoo tëgg ñun xam nga duñ dem ay ñun xajuñu feneen fu dul almadi fu ñu bëgg a tëgg tëgg fa. Mhm. day fekk ñu bañ a tëgg fenn rek. fuy cosaan Youssou Ndour nee na boo demee ba xamoo fi nga jóge <laughs> eh, dellu fa ba xamoo fi nga jëm. dellu fa nga jóge woon. waaw mm. ah, loolu la rek. waaw ah. ah, <laughs> cosaan la xanaa dellu cosaan rek noonu la nit ki moom dangay xam sa bopp sam waay cuuj day xam lekkam. <laughs> mais yéen faramaari nii daa mel ni da ngeen a jël boîte yëpp aaki moo ko ndaxte Pape moom gaynde la doon tëgg gis ne léegi Kéba moo jël gaynde loolooy problème ji tamit. Kéba sax man nag Kéba moo fi nekk ginnaaw waale Kéba moo dàq way ñooñu ngay wax ñëpp Kéba du seen morom. Kéba vendredi sax da gis mu toj mu toj euh, vogue ah. gay na ko abal nag samedi pa pa Kéba nag dinaa waxtaan moom mu koy abal gaynde muy tëgg foofu comprendre nga benn bi tamit maa ngi wax gars yi mm. ku jàpp lii may wax. nit moo may wax loo pour may wax yaa ngi ndax sa bopp samay samay responsabilité bopp la damaa am sama nit bëgg ko te yàlla tax muy way mm-hmm. du ma nangu kenn ku koy xor ñoŋal du ma nangu kenn kuy wax ci moom lu ñaaw parce que sama nit la sama fans la mm-hmm. waale du ma xaritam fansam laa dama ko bëgg faramaarin la mm-hmm. you moom amul benn amuma gars yi dañoo jàpp gis nga ñu bëri dañoo jàpp ne damaa topp ci ginnaaw waaleet waale men yéen a ngi nax seen bopp yëpp ma ngi ñëw ci man comprendre nga gis nga man Waly wax loowu ma ma Samba wax loowu ma ma Demba wax loowu ma am naa nag sañ-sañ bëgg nit ku ko laal man génn protéger ko wax wax ci wax ci wax ci moom comprendre nga beneen bi mooy man duma topp ci ginnaaw kenn ku du sëñ Tuubaa man awma ku may topp sa ginnaaw man ku dul sëñ Tuubaa topp ma sa ginnaaw maa ngi lekk maa ngi naan te waali joxuma ko maa ngi lekk maa ngi naan ma sàmb joxuma ko ma dem joxuma ko maa koy laayefal sama bopp ñafeel ko sama bopp amal ko sama bopp def ci sama bopp yóbbul samay waajur bu jigéen yóbbul sëñ Tuubaa man loolu laay dund ku neexul nag nga màtt sa bakkan foofu laa ne ci wax ju ñaaw jooju lañ ñëw ndaxte gis nañ jour boobu bu boîte bi buñ ko tëjee gis nañ kii di Matar bu mu ñëwee daawoo jaar fu ñaaw en tant loolu tamit war na xaw ma kooku nga ma tuddal de li ma xam daal mooy gis naa benn vidéo boo xam ne ñu ngi ci saaga day xaw ma Matar Diop Bernard Soubatel xaw ma ko de wax dëgg xaw ma ko de gis naa benn vidéo daal ci TikTok bi ku ciy saaga ndey mhm. te loolu moom man de li ma jàpp nga ni kilifa nga mhm. te it kilifa gu mature nga waroo sax jàll ay baatub saaga mhm. muy jëm ci loo xamante ni public lay doon waaw xaw ku def noonu wax jooju ne xaw ma kan la at xaw ma ku def vidéo boobu waaye xam naa ne ku immature la xaw ma kan la nag waaye xam naa ne ku ñàkk fayda la ku doyee la ndax loolu ku ko seetaan képp rek da naan kii ku waye di la mm, mm. kii ku ñàkk gëm boppam la mm-hmm. xaw ma nag ku def loolu man gis naa vidéo bi daal muy sama muy taxawaaloon yooyu noonu ma gis saag yi waaye xaw ku ko mën di def mm. waaye ku ñàkk ñàkk fayda la waaw xañ na nag loolu moom def na ko nit ñaa ngi ciy commentaire nit ñaa ngi ciy wax dina ko jàngal àdduna mm-hmm. ndax mu xam àdduna mm-hmm. sëñ Sidi Muxtaar dafa mos a wax ne ku xamadi doo xam dara mm-hmm. ku ñàkk teggin doo dara te dañoo jàpp ñu ne kon moom daa firndal ne xale yi ñu doon saaga ci internet bi moo leen doon yónni pour ñuy saaga ay nit kan la nekkoon ci vidéo bi di saaga xaw ma sax ko moo kooku en tout cas daal man am na vidéo tamit bu ma jot boo xam ne saaga ndey yu ñu saaga ndey xam nga yoon moom dafa dafay nekk ku wet da ngay laaj liw faramaareen tey jii ba mu fi nekkoon doon saaga ndey anamu tey juróom benn weer ñu tëj ko ko ci kaso bi mm-hmm. lan moo fi yar kooku xam nga ne bu génnee dootu saaga mu ngi noonu mm-hmm. mais di def ay vidéo di saaga nit ki te nit ki defu la dara wala nga naan ko yow yaa doon saaga diw mm-hmm. te diw moomu sax mosul wax ba wax ci diw wala diw moomu mosul wax ba tudd diw loolu nañ bàyyi yooyu showbiz du ay saagante ndey kuñ fi tëj ci kaso bi say mbokk ay sonn ka ngay jàppale ci bi du ko def ana 6000 da ko déggati muy nekk di wax est-ce que amoo fu ngeen ko dugal yéen waa waa non non simil day nit ku baax bi mu demee foofu dafa jàng àdduna jàng lu bari mm-hmm. xam ni lii amul njariñ. Mm-hmm. gisatoo ko mu nekk di wax lu ñaaw wala muy def lu ñaaw. daf may woo téléphone di waxtaan man lu yaatu di ma jàngal àdduna may jël ay conseillers ci moom. Mm-hmm. ana keneen ka sëñ bi soo bis amul ay saaga amul ñàkk amul yu ñàkk fayda. man nag duma ma saaga ma sàmba du waxal ma demb du ma tudd ma demb du ma wax ma kenn waaye sama waali mi ku ko laal. ma génn tontu at koo mën di doon nag kii que ce soit ku laal waali ma génn wax ak yow Cheikh Amar waxi noppi door a gay limaale wu ko waaw ñu gisoon fan yee am na koo xamante ne da nga koo porté plainte nga ne dalaa def menace de mort waaw loolu dossier bi mi ngi ci yoon hmm. ginnaaw yegg na bi mi ngi ci yoon yoon nag ñëpp la fi nekkal hmm. waaw man damay dem ba jeex lu ma yoon may ma jël hmm. incha allah fii fan yoon dinañu dinañ ci am lu leer. Hmm. waaw yéen xam nga ay journalistes lu xew ngeen di ngeen xam lépp dara dara umpale na ngeen nëbatu rek. Hmm. waaw hmm. ñu gis benn vidéo boo xamante c'est boobu ma la ñëpp naan yàgg na di naan yàggul mu indi coow lool ñu gis Pape Diouf génn ci téléphone la ko filmé sax mu def benn vidéo wax ci ay wax yoo xamante ni wax yu tegginut nee moom kenn mësu koo jàpp ci ay phobie kenn mësu koo dégg ci ay muy vulgariser ay xale yi bokk te ay problème ñoo xamante ne vidéo bi ku ko gis xam nga ne kii kan la ci kan moo doon def loolu. mooy kan. Ah, waykat boobu ngeen doon xëccoo euh, baaraam mu ni ba léegi mu dem cosaan. non xaw ma waykat benn waykat laa xam muy waale. waaw léegi waroon a tegg fee baaraam ni ba ngeen tëj bu ah bu moom moo def loolu def na lu ñaaw man loolu rafetlu wuma ko. Mm-hmm. te it xañ na xam nga wax moom di wax di cax noonu. Mm-hmm. taxul ñu gëm ñun. Mm-hmm. ñun boo amee demee ba am fit bay waxat ñun. tuddal suñu tur nga waxat ñun. Mm-hmm. nga ni waali day nàngam wala waali nàngam mm-hmm. ñun loolu lañ gëm su boobaa dootoo ko def waaye kantaan di wax di kii nii rek di kii ñun di gaaral yooyu noonu ñu ko en tout cas suñu artiste il est meilleur amul benn feebar boo xam ne suñu borom teg na ko mu ngi sant yàlla bu wér. wax jooju amul benn feebar ñun xam nañ ñëpp xam nañ ne waali amul feebar. lan léegi lan moo la inspiré ba nga wax wax jooju. ma ngi sant yàlla bu wér. daa am benn artiste bu feebar. àdduna du dox. Mm-hmm. ba ngeen dégg ñu ni jàpp nañu waali ci mbirum oto. àdduna dox ba ngeen dégg ñu ni jàpp nañu waale ci mbirum foobee mm-hmm. ay fans waale sax doo leen dégg ci loolu yu ñàkk fayda yooyu mm-hmm. ay nit waale sax doo leen dégg ci yu ñàkk fayda yooyu nag waaye nag nit koo gis am na baatut gannaaw mm-hmm. ndax loolu fi lañ ko fekk loolu day yokk waali ñun ñii dañuy yokk ñu wan nii wax yi may waxal daf may yokk ndax du ma wàññeeku ndax ña lay waxal sax du la amuñu fitu sax jàkkaaroo yow di wax yow donc kon loolu amul lenn luñ ci bàyyi xel. dëgg la am na nekk Sénégal yaa gën a siiw waaw mais xam nga suñu borom moom ci boppam mooy sàkk jaam bi. Mm-hmm. def ci moom la ko neex. Mm-hmm. yàlla mooy sàkk jaam def ci moom la ko neex. lu nit mel rek yàlla la ko def. Mm-hmm. waaw nañ ko karaameet yàlla. loolu kese la te it maa ngi wax benn affaire gis ngeen Sénégal ña ngi kafe loo xamante ne nii ko muy daw gi fi am ñu ngi koy bàyyi xel ko ndax sa xëndëng te loolu du fi amee. nañu waxtaan ci loolu actualité boobu ngeen ñëw ngi def ko benn journée ngeen bàyyi ko mu dem yeen journalistes yi nañ waxtaan ci loolu daw bi il faut ñu duggaat ci il faut ñu débawaat ci daw bi ba ambassadeurs yi yëpp yëg ko il faut ñu demaat ci ah, parce que daw bi du yoon plus de centaine de personnes xaw ma ñaata personnes daw génn ñu yóbbu leen ñu daw dem seen yoon tey ñu war a am ñun ñi war a am ay visa suñuy doom war a am ay visa à leneen leneen leneen leneen il faut ñu wax ci loolu te loolu man duma ko bàyyi mu sedd il faut ñu communiquer waat ci ah. doo ko bàyyi mu sedd noonu loo nar a def ci loolu noonu. parce que man do sénégalais laa dama war a am visa. mais dañoo gis ba problème boobu bu mu amee ñëpp dañoo génn euh, am benn xolu yërmande ci euh, artiste boobu mais dañoo gis yow bi nga génne da ngaa dal ci artiste bi. non artiste bi dara deful dara artiste bi contrat la am mu tëgg contrat ñu bindal ko mu dem yoonam artiste bi deful dara dem way ñëwaat comprendre nga mais nag actualité la suñu réew am na ñu fi jóge daw mm-hmm. neexul kenn. tey jii loolu mën nañu yàqal ñun ñii yow mi war ngaa mën a dem déposer visa mën nañ laa rejeter mhm. ne leen dañ leen may visa ngeen daw lu ne mën na ci am voilà dañuy sénégalais bu ñu leen may visa dañu dañuy daw xamoon nañ fi ay benn nit ñaari nit yu daan daw ñu bàyyi mu sedd mais lii daw bëri mais ñaara ñaara nit ñaara nit la est-ce que du deux personnes non ëpp na deux gars yi dañuy wax mais ëpp na deux man li ma déggoon ay ñu bëri ndaxte bi ñëwaat na ñu bëri est-ce que non man daal li ma déggoon mooy neuf personnes lañ daw nañ am na ñu ñëwaat yàlla na yàlla jàppale ñu toog seen réew liggéey comprendre nga ñi dawit suñu boroom jàppale leen fa ñu ne suñu borom defal leen buntu wërsëg seen xéewal yokk waaye demal ne nañ ci wax. mais daw bi daw bi daa mel ni yow ànd daw bi kon. non nañ ci wax daw bi du yoon. ñu ciy waxee ci ban lii ci ban anam lañ ciy waxee tamit. mooy ambassade yi ci boppam. Mhm. ñu fexe ambassadeurs yi ambassades yi jot ci lii. déet coow li bu ci jotoon dina def la tout. ambassade yi bu ñu ci jotoon dinañ def lu tout ñi mën nañ ñu yàqal du ci artiste bi de artiste bi deful dara voilà. bu ñu jël affaire bi sëppi ko artiste bi. du ci artiste bi am na fi part de responsabilité. ndaxte gis nañ dafay jël ay artistes di leen yóbbu euh, euh, Europe mais kenn bu si daw tamit. artiste bi daal li ma mën a wax mooy artiste bi deful dara. est-ce que c'est ay musiciens tamit euh, teg na leen seen place ndaxte gis nañ kenn ci ay musiciens bi sax génn na mu ne moom da doon tëgg ay 15000 lañ koy fay la ay 15000 la ñuy laal nga jaar ci nga jaar ci nga jaar ci saf xam nga xëy jaar ci saf jënd la ngay jënd benn ndékki bu 3000 xaw ma nangam xam nga. kon kay ñoom defuñu dara. non waaw non déggoo ma ni daw bi waxuma ñi daw de. kii xam ne mooy responsabilité bi. Mm-hmm. daw bi bi mu amee lu tax jëlul ay responsabilité am fexe ñu ñibbisiwaat. Mm-hmm. foofu laay waxee ko waaw. dañuy dañuy ñëw ci benn problème tamit baaraamundi bi foofu la ñuy tëjee xam naa suñu émission bi ñu bàyyi la nag te temps amut ñu bëri jàmm am na benn jegenaale Wally boo xamante ne man jël naa ko en personne mais daf ma ne biir baaraamundi Wally dafa am contrat su joué fay su joué wut fay même nii su amee benn samedi boo xamante ne waa daa war a joué feneen même su teggut biir baaraamundi daa war a fay te en tant que xamante ne su ma mën a la ku jege Wally am na lu yoo xamante ne moom mën nga ñu mën nga koo wax sénégalais yi ci Wally est-ce que loolu lu am la. Wally dafay Baara Moundi dafa am contrat su fa joué day fay su fa joué wut day fay. waaw loolu moom leeruma waaye li ma wër mooy xam naa ne ba waali ñu koy xëccoo ci pour muy tëgg ci boîte yi dafa bëri waaw waali boit boîte yi ci boppam ñoo koy soxla. parce que waali boo ko tëggee ci benn boit rek la boîte boobu di am mosu ko am ci benn artiste. comprendre nga baax waxuma nag ñoom Youssou Ndour ñoom fi ñu jamono ji ñu toll. waaw alaxam moom nga tudd la gaalaa mu waaw tey ji boo ko tëggoon beneen boîte du fees parce que ñooñu duñ ko sawar a jël parce que du fees maximum maximum trente personnes moo fay dugg est-ce que comprendre nga fi may waxee. Pape Diouf depuis mu génnee album bi nag dégg naa Baara Moundi looloo tax ngeen ñëwaat Baara Moundi tamit. samedi bi passé lañ ñoo xëccoo Baara Moundi. Oh. na fa bële. boobu dafa boobu daa déedéet daa feesul moo tax ñu jëlaat bi jox ko waale pour mu tëgg fa. léegi borom bara borom boîte bi moo woo waale ci boppam ne ko kaay nga joué fi. no xam waale moom mooy moom moom moom Baara Moundi. waale bu tëggul ci la koy abal nag boo yooyu nga tudd sànq. ci waa su waali ci la koy abal gram kay. comprendre nga waali bu tëggul. wala mu am yeneen contrat ay war a tëgg King Fat wala war a génn dëkk bi. Mhm. ci la ko boo yooyu di di tëgg. comprendre nga mais waali bu a tëgg samedi nekk ci dëkk bi la pat la euh, ñu koy waxee la patron de la musique sénégalaise bu ñëwee ci dëkk war a tëgg moom bu waree tëgg boo yooyu dañuy xaar est-ce que mbaa xam waree tëgg bu waree boo yooyu dañuy xaar loolu mooy problème bi. ñoom Pape Diouf daal ay booy lañ ci waaj. non dama ni booy yooyu dañu ay booy booy yooyu daal lañuy xaar ñoom ay booy laa leen ñoom ay booy laa leen jàppee man parce que yëfi booy lañ laa gis ñu koy def quoi. de yow te yow yow kese yaa ko ñu waaw man daal ay bo loolu daal laa amoon lu ma wax mooy bu kilifa gi jógee voyage ñëw senegal hmm. yàlla dogal samedi jot mu war a tëgg hmm. bu soxlaa fu mu war a tëgg booy yëpp ay xaar hmm. fekkee nag booy yi dañoo am xolu kiñaan ne duñ xaar. dañuy jéem a xajamal. Mm-hmm. fexe def ci affaire bi suuf coow mm-hmm. xam nga fexe bëgg buzz fexe am tur mm-hmm. yi ñàkk fay doyee kaw nga teewul ñun amuñu amewuñu benn feebar bu naan jabet dañuy dem gérer suñ beneen boîte bi nekk vok tëgg fa toj ko ñibbisi <laughs> maa ngi gis publicité yi ñun ñu ngi waajal la kaat incha allah fële ci grand théâtre te li ma gën a neex ci waali mooy fu muy mën di tëgg keneen di tëgg journaliste yi ci moom rek li ñuy continuer yéen daal yéen dama leen a bëgg daal parce que yéen da ngeen a jox waali bopp ba nga xam ne mooy loolu <laughs> ah tey bu waali doon tëgg kirikuru am artiste bu mag di tëgg fii da ngeen bàyyi fii dem kiriku ah nañ nangu loolu loolu la yàlla dogal ah voilà euh, délégué tey moo nekkoon euh, suñu invité tey xam nga ne moom moom lu mu mel ci waali soo ñëwee foofu lépp loo xamante di buy tëgg samedi waali buy tëgg samdi wala dimanche mm-hmm. duñ ko publicité ci télé mm-hmm. lu dul ci sunu téléphone yi rek partagé euh, affiche bi man na gis naa bu ñuy publicité ci tele boo xam ne. yenn affiche yu ñuy tëgg ci boîte dañuy. non man tey laa maa ngi koy doo gis am na bu ñu war a tëgg la carte la carte bi daal gis naa ñu ngi koy publicité ci télé yi. Oh, cosaan mooy cosaan mooy cosaan. waaw ku xamul ne ko dem nu nuyu suñu waxoon ku dem ba. xamoo fi nga jëm dellul fa nga jóge woon. gaynde la war a dellu. de gaynde la nekkoo daan na fa tëgg bu yàgg. Ah, waaw loolu yàgg na de. Hmm. daan na fa tëgg cosaan waaye. xam nga Youssou Ndour sunu mm. sunu kilifa la. Mm. moom léegi moom ma ngi noonu rek. te li garaaw ci waale mooy. Mm. waale est-ce que yéen ngi bàyyi xel way yàgg yi muy wayaat. waaw keroog ndax gi seetaan nañ ko ci boîte bi Vogue. ancien ah. ancien yi son ni mu koy jàppaate ci bopp bi. Mm-hmm. di ko wayaat te du ci yàq dara. Mm-hmm. est-ce que bàyyi ngeen xel li may loolu lu jafe la lu jafe ngi noonu. non non ba artiste buñ fi tegaatoon sa way démb da nga liir ko de. non non non loolu mënuñu ko xalaatuñu ko seen àdduna. Boy la Boy Sidi kay gis na. non loolu non xam nga moom ay wayam yàggul 2013 la. waaw 2013 xam nga loolu yàggul mën na ko jàppaar yooyu garaawul. yàggul quoi xam nga. Mm-hmm. yooyu moom amul problème bi mu bi muy xam nga moom amul way boo xam ne wayu boppam la boo xam ne moo ko keneel boppam génn ko comprendre nga. nit ñi mën ko bàyyi xel moom ay wayu ngoyaan ngénte yeet mariage yeet yooyu la daan def xam ne la yooyu jël wayu jàmbur Papa Thione moo way lii Baye Baye Youssou Ndour moo way lii delul moo wax la lam wax yooyu xam la loolu yomb na daa bokkut ak li nga xam ne sax wayu bopp la nga génneel ko nit ñi déglu ko. mais lan moo tax yéen ngeen sonal si ndaxte gis nañ ménageur am bi sax léegi jëli ngeen ko teg ko seen wet. kan la Baye Sall si di la nekkoon. Sidi ko bàyyi dem yéen tam ngeen dem jëli ko. non non Baye Sall baax la xam nga man am na droit nag su nekkee nit nit kooku wor ko mu dem Baye Zale avant que bañ nekkee ba mu nekkee sax ci kooku Baye Zale xaritam la woon tamit dégg nañ benn rumeur buy daw mooy The Best Wally daa bëgg a jëli The Best non The Best man maa koy jëlee indi ko fajarteel musique ah, waaw am sa boor ba waaw dama am label fajarteel musique The Best kay dégg nañ ci ay rumeur moom génn na suba te ah, oh, dinaa lijjanti numéro am ba woo ko waxtaanal moom mu ñëw ñu liggéey maan moom ah, non xam nga waali waali waali waali soxlawul yooyu dañuy wax rek waali sa bés sax rakkam la la rek mais pas ay ko indi ko bu waree moom nag dinañ liggéey teewul man dinaa ko jëlee fajartel musique ko ko ñoom ñaa ñu liggéey di woo waali sa bés yooyu yëpp ñoo ko bëgg ndaxte naanaan naanaan ak ndaanaan ñooy ànd man la bu ko waali soxlaa man na ñëwul ab ma ko mañ abal ko ko xam nga wax mm. waaw loolu du problème léegi daal nañ ko xaar pare soxla ci man day yomb mm. waaw kon la Sénégalais xaar daal délégué pare na pour lancer boîte. je bés daa aay de macha allah. seet tët tët kooku kooku nit. xam fi nga war a teg sa tànk. nit yi am na foo xam ne du seen kër. comprendre nga. waaye nag yàlla mooy def loolu bala ngaa xam xamadi xaw laa rey loolu kese la gis nga Omaro. waaw comme Omaro rek gis nga ko ni ko yàlla def. lan moo tax ngeen sotal waa Subatel. jëli seen i éléments yëpp indiwaat. Subatel gi ma xam. bu la. suba teel musique. non man xaw ma loolu. suba teel daal laa xam nga bàyyi suñu nee Pape nga ne xamoo Pape Diouf suñu nee Matar nga ne xam daal mooy suba teelu suñu borom bi nga xam ne damaa juddu fekk ko fi yow da ngaa juddu fekk ko fi. suba teel mi organisé woon keroog suba teel mi organisé woon keroog mooy Afrima bu fi ñëwoon euh, le 14. billa yàlla xam yàlla barki sëñ Tuubaa xaw ma luy Afrima kon koy mënumaa xam suba teel bu dul yàlla bii nga xam ne moom moo ñu sàkk. <laughs> dégg maa ngi koy doog a dégg ah. daal ay faramaareen ay golden yooyu daal daa xam naa daal yooyu moom xawma leen fenn de ñoom Mandiaye. yàlla na yàlla taxaw sàmm leen te aar leen. waaw yàlla na yàlla sàmm. Hmm. waaw. kon cher internet tey délégué woo nekkoon suñu invité nit waale xam nga moom moom suy wax si waale si yow moom daal xol lay waxee dañ koy bàyyi rek mu tàggoog ndaxte temps amul tamit looy tàggoo. saa sant yàlla sant yàlla santaat sëñ Tuubaa bu baax a baax. Euh, santaat sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax. maa ngi gis tamit Moustapha Dramé mu wax wax ju am solo ci waali ndax nga koy ngay wax ci moom tontu la te nga gis muy avance ci liggéeyam sa ngor sa bu njëkk daan na génn waaye am na bis waxoon naa leen mu génn ne lan oto bi waale di yor da bëgg a am. kon kooku bàyyi na xel xam na ni kii yone gii liggéeykat la xam na ne kii it ko am jom la. donc maa ngi ko ci sant di ko ci gërëm di ko rafetlu. waaw xam nga moom sax daan naa génn di dal ci kawam ndax jamono yooyu danaan dal ci kaw waale. waaye yàlla suñu borom ndogal na. léegi ci kër gi la bokk. boole nañ la ci kër gi. rafetlu nañ tamit kàddu yooyu nga yëkkati ndax nag da ngay seedeel sa jullit day seedeel moroomu jullitam lu rafet. boo gisee lu baax da koy wax. Mm-hmm. loolu ñoo ngi koy rafet lu baax mu Moustapha Dramé. Mm-hmm. di am ci yow contentement ci wax jooju bu baax di nuyu tamit Mara Niass sama mm-hmm. xarit. di ko siyaare di ko jox wàccuwaayam muy sama wóllëre. sëñ Mara ñu bokk Serigne Saliou. Euh, ñoo ngi koy ñaan suñu borom kàttanal ko ci lii mu ne. mu ciy gis ay ndam saa su nekk. jërëjëfati kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax. donc euh, loolu daal mooy wax ji. lu mel ni daal mooy tontu yi comme li ñoom Moustapha Dramé di def. Mhm. mooy tontu Waly Seck. Mhm. comme ñun li ñuy def te Waly sant ñu koy yëgu ko. Mhm. xamul man du ma mën naa toog un mois du ma gis Waly. xanaa mu tëgg ma dem soirée baale ñu ñibbisiwaat. kon kooku nuñ koy wax lool. waaw ah, jeex na damay respo man maay ambassadeur am ci côté média. maa koy tontu muy neex nit muy naqari nit. waaw bu mag international. jërë ngeen